alors que li xew ñëpp gis nañ ko. d'accord ñëpp gis nañ ni ki warul bokk mu ngi mu ngi waaj a xotti institution bi parce que mu ngay campagne ki war a bokk ñu ngi koy jéem a fàggaagal lii ñuy def nii ci violence ci moom waxuma ay toj otoom ak fexeel ak nervi ak déclaration incendiaire yooyu deux poids deux mesures yooyu loolu moo dul jur jàmm ci dëkk boo xam ne ki nga xam ne moo ko jiite kenn wóolootu ko comme ni ko Cheikh Omar waxee mënuñu nangu gor yëpp gor yi ci dëkk bi ñu bëgg leen takk buumu jaam te ki leen di takk buumu jaam gënu leen gore voilà parce que nit ñi ñun sàccuñu alalu réew mi suñu kàddu du ñu féete gannaaw mhm. euh, nekkuñu ci loo xam ne dañu ci xeeb mhm. contrairement ak moom ak ñi mu àndal ñi nga xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi ci ay scandale yoo xam ne day wane ni seen ngor euh, tuuti la d'accord nañ ñëwaat ci loolu ci dégg na yaatoo dem delluwaat ci Pape Sané euh, bu fekkente ne mbirum Ousmane Sonko lépp ministre de la justice génn na am nu mu waxee ñu bari jàpp ne sax daanaka condamné nañ ko ba pare te mbir mi mm-hmm. euh, maanaam atte bi euh, kiiwagul egseguñ ci loolu benn la ñaareel bi itam euh, toj nañu fii otoom waa BIP def ko génne ko ci anam boo xam ne lañ ci jublu ñoom ñoo ko xam wax nañu ne ay tubaab ñi ngi ci woon am ñu taxaw wax ne duñu ay tubaab ay naar lañu xumaay lan <laughs> après wu ñun wax nañ ci fii ci lu yaatu jaruñ si ñëwaat léegi ay tubaab ñoo ba nekk ci kii ingérence boobu nga xam ne la fois passée ci lañ mujjee wax loolu am fekk si ñu ba pare ñu def ko seen oto ñoom yóbbu ko ba këram ñu bàyyi ko fa tey ñu taxaw buntu këram ni ko doo génn te loolu c'est pas la première fois ñu koy def euh, kon est que amul benn démonstration boo xam ne ñoom ñi ngi nekk di ko def boo xam ne xam na dañuy seet ëllëg ci biir bu ñu demoon bu bëgg koo jàpp yóbbu ko ñoom ci ay bërëb wala leneen ak leneen ñu mën a natt ba seet ndax dina mën a nekk du mën a wala boog du mënti nekk du mën a nekk euh, parce que daal mel na ne boobu tey ñu ngi yootu yootu di seet naka lañ koy jàppee waaye ñi ngi ci natt lu mel noonu travers yi nga xam ne moom ñuy jëf noo mën a jàngatee jëf ju mel ne yi ñu jëf tey taxaw buntu këram ne ko doo fi génn. waaw ah, euh, Pa déjà ci sortie ministre de la justice bi bon man ne daanaka bettu ma. Hmm, Ismaïla Madior Ismaïla Madior Fall man bettu ma parce que moo fi taxaw fii bëccëg ndar kam xool 17 million de sénégalais yi dans les yeux. Hmm. ne leen yéen xanaa jàngu leen. wala mënu leen di lire. constitution bi. nee nañu nul. nul nul. ne peut faire ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. waa jooju moo ko waxoon fii. mais waa jooju également moo fi taxawoon fii jàkkaarloog Sénégalais ne leen Ousmane Sonko mi du mus a nekk président de la République. donc peut-être que des fois day baax ñu rafraîchir la mémoire au Sénégalais ñu xam un peu. kii génn barki démb. naan ci émission rajo. étant ministre de la justice waxuma sax ministre de la justice cest à nga nekk rek un cadre de l'administration rek. un professeur de wala benn sénégalais lambda rek. nga war a mën a génn yow toog publiquement la nga xam ne dafa pendant devant la justice yow déjà nga ci joxe joxe mandarga ni que kii dañ koy tëj maanaam kii dafa coupable. Mm. parce que ci wax ji moom loolu la firndeel. Mm. Baye Omar Gueye. rectifier ko de ko non monsieur le ministre la <laughs> ngay wax mënul nekk parce que waa ji atte guñ ko. Mhm. donc boo ciy wax da ngay jéem a sax indi présumé waaye mais nag du guléet fii nañu gis ci gouvernement bi ministre taxaw indi fii li ñuy wax la présomption de culpabilité. pour la première fois ma li ma jàng jàng sama droit ni mu néew néew néew néew yëpp. maa ngi soog a dégg présomption de culpabilité. <laughs> Mhm. mosuma ko dégg ci àddina. Mhm. waaye mais Sénégal la ci Sénégal bi tamit fii lañ fi benn magistrat indi loon. le flagrant délit continue dem jële ko fële ca droit <laughs> droit droit droit pénal romain euh, romani pour topp fii Ablaye Wade mm. donc kon yooyu dama ne du fi gulet mais ñun dañuy yaakaaroon ni que euh, surtout ku mel ni professeur Ismaïla Madior Fall euh, fan yi rek maa ngi dégg nit ñi gis nit ñi génnewaat ay vidéo am 2011 2010 di fàttelu discours yi mu doon def sur les modifications constitutionnelles consolidante et ah, déconsolidante mais c'est Afrique bi yëpp na woon ko waaw kooku moo ñëw taxaw tey ne lii ci mbirum Ousmane Sonko donc ma kooku du mbetteef euh, mooy benn ñaar situation bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko di dund parce que il faut le dire pourquoi son nom revient tout le temps parce que tamit soo jëlee fii tey jii sénégalais set million de sénégalais que nous certes bëri nañ fi ñi nga xam ne ñu ngi leen di troxal ñu ngi leen di budd xatal mais Ousmane Sonko. mu neex mu naxari mais c'est le bonhomme le plus persécuté au Sénégal Ousmane Sonko moom tey quand j'ai vu les images doom ji di génn war a jàng ji ñu koy tere jàngi mais j'ai eu honte pour mon pays wallaahi wallaahi quoi sànq professeur day wax ci wàllu résidence surveillée ñi ne ci wàllu droit penal bu ñu demee ba lay placer résidence surveillée c'est une peine peine alternative de prison mhm. te loolu juge rek moo ko mën a décréter décréter prononcé mhm. mhm. effectivement ñu seetlu depuis presque ñaari weer ñetti weer ñoom takk dari ci seeni sago saa yu leen neexee pour que Ousmane Sonko bañ a génn ñu ñëw taxaw bloqué buntu këram buntu bloqué cité bi cité bi yëpp sonal waa cité bi yëpp sonal waa cité bi mooy donc charte constitutionnelle yi ma la doon wax article premier article huit ak article quatorze ñu koy salfaañee mm-hmm. mais may fàttaliku encore nga may ma tuuti rek ci wàllu xam-xam il faut que sénégalais yi ñu wax xam ni que tey ci wàllu yoon ñetti assignation moo am ñetti tibb assignation benn bi euh, mooy assignation ba nga xam ne ci ay heure nañ koy tënk maanaam assigné la surveillance sa kër ci ay heure kooku juge moo koy décider ne <coughs> Pape Sané mi diggante heure bi ak heure bi bu mu génn këram mooy benn ñu ne assignation à résidence loolu dañ la fay teg pour mun a la surveiller bàyyi bët ci yow loolu it mënul weesu mënul néewu quarante cinq jours bu bëree ba bëri juróom benn weer la te kooku juge moo koy décider mais beneen article de article cent quarante deux du code de procédure pénale mu ne lu bu weesoo contrôle judiciaire juge également mun na la assigner à résidence cest dire comme ni mu jëlee contrôle judiciaire ni mun na la assigner à résidence mmh. mais ñun gis nañ ni concernant soo Sonko gisuñu ci benn acte. benn assignation d'assignation à résidence. Mmh. mais kon nag ñu jàpp ni que c'est des c'est des assignations administratives mooy maanaam du ci wàllu yoon mais mun nañu jàpp ni que ci wàllu doole état nañ ko defee parce que tamit boo gisee ma ne doole état. Mhm. mooy que ay ndaw état nañu gis ñu ñëw taxaw fa bloqué ko. Mhm. li mu mën a jur effectivement ci xalaat mën nañu ne. xëy na boo bëgg léegi ca ngànnaay yu ñu jot a jënd yëpp yëpp yëpp ba nee fi woon li fi xewoon mars deux mille vingt dootu fi xewati ñi ngi natt seen bopp xool ndax effectivement la fi xewoon dootu fi xewati parce que ñiy fàttali ni que coow li yëpp buntu kër Ousmane Sonko la démarré. buntu kër usman Sonko la coow li démarré. ba jur lii nga xam ne moo dem law biir Sénégal gi yëpp <coughs> mun na ne kon. loolu benn test la mooy maanaam li fi xewoon dootu fi am test benn test bu ñuy teg mooy benn ñaar mun nañ jàpp également ni que comme ni nga ko waxee ñi ngi teg seen i stratégie parce que nag euh, Pape Maguette dañ naan euh, euh, golo moom ca taatu garab yéeg ba wàcc wala di waaj a yéeg mm-hmm. parce que man ba léegi nii j'essaie de d'analyser damay maa ngi analyser situation bi nga xam ne police ak gendarmerie ñu ngi koy teg depuis deux à trois mois sur l'opposant Ousmane Sonko mais ba léegi nii dafa am yu tuuti yi nga xam ne moo tax mënaguma ko apprécier à sa juste valeur mooy les donneurs d'ordre parce que loolu yëpp bu amee mooy am na ñuy joxe ordre te ñii di joxe ordre wax fa dëgg yàlla euh, dama bëgg xam fu mu ne nii ñoom ci lan nañ ko teg bay joxe ordre ñuy blocus kër jàmbur bay joxe ordre ja waaw jàmbur bu génnee bëgg a dem fenn ñu dóor ko ay lacrymogène c'est-à-dire c'est c'est extrêmement grave kii euh, professeur mu ngi rappelé tuuti léegi affaire u Guy mais man boobu sax choqué na ma mais li ma gën a choqué mooy démb ñi pare meeting c'est-à-dire il faut nit ñi ñu xool chronologie bi mm-hmm. démb mm-hmm. nit ñaa ngi meeting fële mm-hmm. man dama ne bi ñu toogee ba 19h meeting bi geexul. Mhm. ma ne nag tey lay xool ndax ñu ngi ci république. Mhm. parce que ci yoon préfet. Mhm. de Dakar wala sous préfet des Parcelles Assainies. dafa waroon ñëw egg si ñëw taxaw ànd ndax l'officier de police judiciaire territorialement compétent. ñëw arrêté lu mbir mi par la force. mais bi ma gisee defuñu ko ma ne. lenn moo ñaar moo am mooy que ñoom ison ont le flanc mooy benn un. Mhm. ni ñu prêté le flanc parce que préfet la ko charte teg pour buy autoriser meeting. Mhm. diir gi waxtu gi. Mhm. délai yi respecté wu ko mooy moom dafa téye autorisation bi ba heure bu ko neex. joxe ko. manquement boobu nag dama ne. bu ko keneen defee muy la citoyen simple nga tënk ko ci waxtu te yow ñu tënk la ci waxtu respecté woo ko yow boo ko tënkee ci waxtu moom it du ko respecté ma ne donc il sont mal à l'aise pour ñëw di intervenir foofu mais ma ne nañ ko mënee koj buntu cité bi muy dugg si di dóor ay grenade ba dóor ko ci ciment bi laal bëtu benn xale. non c'est-à-dire que. tuur bëtu xale dem ci guddi. oui waaw dem ci guddi moom foofu laay waxee quoi c'est-à-dire man dama ne non kon léegi. y un sérieux problème mooy que lan la le projet c'est quoi c'est arrêter Ousmane Sonko c'est euh, intimider Ousmane Sonko c'est détruire euh, la nga xam ne moo nekk tout autour de Ousmane Sonko c'est moo c'est quoi le projet véritablement parce que je veux pas bëgguma àgg sax ci élimination euh, parce que yaakaar naa ni que même bu dee on a vu des militaires yu fi disparaître on a vu des des des des ce sont des voyous waaw on a vu des, des, des, des gens qui sont morts dans des conditions de manière euh, voilà euh, vraiment euh, obscure très obscure ah. ci pendant qu'ils son en détention alors que ci yoon <laughs> être en détention c'est un gage de garantie bu ñu la jàppee dugal la commissariat wala kaso mm. mooy que yow tu es en sécurité dëgg la alors que on a vu presque je dirais pas des dizaines mais bëri na ñi nga xam ne ci ay conditions yu nébuleuses nañu dee dans des commissariats ou dans des brigades de gendarmerie mm. donc bu ñu gisee loolu yëpp mm-hmm. acharnement bi nga xam ne nañuy teg ci kaw kii di Ousmane Sonko on a des raisons de s'inquiéter xëy na nag xëy na am na lu ñuy mëbët mais ñemeeguñu ñemeeguñu d'accord man dama jàpp ne que ñemeeguñu nañ ko de non c'est déedéet jàpp bi si ñeme nañ ko jàpp mais dama ne la sociologiquement mhm. cest à nii nii juridiquement nii nii wala comme nañ koy defee nii ñëw blocus këram ñeme nañ ko jàpp ça c'est sûr. parce que da, parce que dans la bêtise jàpp Ousmane Sonko yomb na non dans la bêtise. Mm-hmm. on s'arrête jamais. Mm-hmm. mais dama ne quand je dis que pareeguñu mooy que am na ay paramètres. Mm-hmm. yi nga xam ne ñu ngi koy natt te jotaguñ ci ba mu leer. d'accord.